ndox mu taa bi fees dell ci bërëb bi nga xamante ne bii mooy kër gu mujj tax ba melukaan bi neexut a xool askan wi amee jafe-jafe ngir mën di ñaanal way dawlu yi. yàgg yàgg fi lañ jëm si waaye lii dafa metti fii armée li ni mel nii dafa jaadootul fii normalement dañoo war a wutal yeneen cimetière yoo xamante ne fa la ñuy denc suñ mbokku jullit yi gis nga bo yow yaa ko gisal sa bopp gis nga ndox mi ni mel. maire ak état moo ñu war a jàppale wutal ñu yeneen cimetière yoo xamante ne nii yeneen armeel yoo xamante fa la ñuy denc suñ mbokku mais lii dafa metti dafa metti trop yaa gis daanaka genn wàll armeel yëpp am ndox la. en tout cas daal ñun lu ñu lu ñu bëgg daal te état bu ñu déggee mu jàpp si mooy mu wutal ñu yeneen yoo xamante ne fa la ñuy denc suñu mbokk yi ndax lii dafa met dafa metti trop boo fi ñëwee lu sa xool-xool dëgër dëgër da nga jooy barki alxuraan lu sa xool dëgër dëgër da nga jooy ndax lii dafa ku ne fii ay nit a fi nekk da nga naan déedéet lii nekkatul sax ak dex lii géej la lii nekkatul dex géej la armel lépp lépp ndox la waaw yàgg na fi chaque jour fi mu ne nii xoolal nawet bi nii machine dañ koy branché daa daanaka li si ëpp lépp day fanaane day fanaan di tàkk di si weer si télécaro bi nii yàgg na fi ngir yàlla boo xoolee armil genn génn wàll lépp lépp lépp ndox la état nañu bu ñu déggee nañuy dimbale li laay war a sóol fi mu toll nii ku am ku fi sa côté bi secteur bi ñu nekk taxaw nii ku fi sa mbokk nekk nii mënoo ñëw ñaanal ko ndax amoo espace foo dugg pour ñaanal ko ndax lépp ndox la ñeneen ko de am na ñoo xamante ne moom am nañ chance pour mën a ñëw chaque àjjuma wala heure bu amee temps moo ñëw mën a ñaanal sa mbokk mi fi nekk mais secteur bi ñu nekk nii genn xaaju armée li ku fi sa mbokk nekk doo mën a am accès pour mën a dugg fa ndax lan ndox ak ay barax te dugg fa sax danger la ñun ñii daanaka man sama daal réer na ci biir ndox mi fële damaa dugg ba am ndox mi dépassé sama tànk yi li laay war a sol état bu ñu déggee nañu taxaw li laay mu jàppale ñu suñu ar wutal ñu ay armeel yu mucc ayib. dañoo bëgg ñu utal ñu yeneen armeel billaay wallaay dañoo bëgg ñu utal ñu yeneen armeel xoolal lii lii dafa salte lii dafa salte yow fii am ndox sax mënoon nañ fee suul nit waaye mais dafa salte fii kenn mënu fee suul nit billaay wallaay yow kii étranger bu fi ñëw day seexlu lii te lii du yoon fii ay nit a fi tëdd billaay wallaay paa lu mu wax dëgg la dañoo war a utal yeneen armeel yu bees billaay wallaay wa taala pompe yi tamit ñu xoolal ñu utalaat ñu yeneen pompe ndax pompe yi bu bëree nawet bi bu ñëwee gars yi mun nañ génnee ndox mi. bu ñu ko defaree rek ñun ñun la ndax ëllëg fii la ñuy mujjee te tamit bëgg nañ ay moto pomp yu ñu mën a ŋàccee ndox mi wala ay suuf tamit yu ñu mën a defaree fii ndax fii ñun suñuy papa ñoo fi tëdd suñuy mag ak suñuy yaay te ñu tamit fi la ñuy mujjee ñu ngi liggéey ngir ëllëg su ñu bopp sax la ñuy liggéeyee liggéeyuñu kenn suñu bopp la ñuy liggéey waaye état bi nañ ñu jàppale wutal ñu beneen armeer ndax fii dafa xat. dafa xat en plus dafa am ndox. yi la sëkk fees nañu tepp ba kenn mënta denc ku wàññeeku askan wi jaaxle lool di saako ñu tuxal bile bërëb. lii nag dañ koy faral di def chaque année parce que ñëpp xam nañ ne suñu jugee ne ci nawet ndox mi dafay bëri ñax mi dafay bëri te dana waral waaye dawli yi fi nekk pour ñu mën leen ziare sax dafay jafe pour ñu mën fee denc tamit dafay jafe. donc loolu moo waraloon tey ñu daje population Diamaguène yëpp ak environnement pour ñëw def désherbage lii nag dañ koy def koy def donc kon yàgg nañ ko def parce que cimetière yàgg na donc mu nekk euh, mu nekk mbir bi nga xam ne macha allah yàgg nañ ko def population bi yëpp ñëw su ko defee ñu bay ko su ko defee à partir d'aujourd'hui képp ku bëgg a ñëw ziar sa waay dawlu dana fi mën a képp ku ñu fi mën a denc tam danañ ko denc beneen plaidoyer bi ñuy wax rek leneen liñ ciy jàmbat rek moom mooy armée yi dafa fees te boobu soo xoolee depuis ay at at ñu koy wax nii maanaam am na ñi nga xam ne tey su seen waay dawlu sax dootuñu ko indi ci bërëb yi dañuy préférer yóbbu ko feneen donc ñu ngi sàkku daal ci li nga xam ne ñoom ñooy autorités yi le président de la république ak son ñu fexee nan lañu amee ay cimetières yu bees parce que tey su fi waaye daw lu génnee pour ñu denc ko sérieux problème jafe-jafe yu bëri la nekk donc daal su lay doyal mooy mooy dañ fexee ñu am ay cimetières yu bees fi ñu ko xalaatee nag du fenn fu dul forêt classée de Mbao bi parce que ay cimetières ñu ngi fa cimetière Batalo Joola mi ngi fa foofu rek incha allah danañ am Euh, danañ am ay cimetière te loolu la ñuy sàkku te cimetière yi su ñëwee du doon sax wàllu euh, euh, commune Diamaguène Sicap Mbao wala Tivaouane Diacksao mais day doon mbir bi nga xam ne mbiru arrondissement la mbiru département la parce que ñëpp ñu ngi koy jooy. ndey ji réew bokk moomeelu Diamaguène Sicap Mbao ak Tivaouane Diacksao dugal nañu seen loxo ci xeex bi la ñu sàkku ci gouvernement bi mooy mu utal leen ab bërëb. ngir ñu mën faa tabax armeel yu bees ngir seen askan. nous avons les capacités de les aménager. nous avons ñun am nañu lépp li war ngir mën a taxawal ay sëkk yu mucc ayib suuf rek la ñu soxla jamono ji jox leen ñu suuf. des terres on demande juste des terres. forêt de Mbao ku ne xam na ni armeelu Batalo Joola ma nga fa appéage ah, bi fa la jaar terre bi fa la jaar kon ñun ñii dëkk fii moom ko di jam nga ci kaw Mbao di Tivaouane Diacksao di l'arrondissement de Thiaroye war nañu am mën a am moyen yoo xam ne daañu fa dagal 4 ou 5 hectares pour lan. pour suñuy doom suñuy baay suñuy yaay ñu ma leen denc kenn sunatul fii léegi ñëpp ñu ngi dem Caaroy Buun Géejawaay c'est pas normal monsieur le président en tout cas li honorable wax mooy ñu xeex bëgguñu ñu bëgguñu ñëw ci tali bi ak yéen te li fi teew tey ci mbooloo bu ñu nexoon léegi ñu dem tali ba attaqué leen te bëgguñu loolu bëgguñu ko ci gaañu bëgguñu ko ci dee ndax ay bàmmeel kon nag bàyyi leen ñu xel ku leen jox cër ngeen jox ko cër te la commune de Tivaouane Diack Sao commune de Diamaguène Sicap Mbao jox mooy yoonu askan wi ñun en tant xale yi moo tax ma ne bu kenn dem mu ne bu kenn dem nañ takk brassard rouge def avertissement bu weesoo tey nag te amuñu lu ñu bëgg incha allah nous allons à la route daañu baare tural tali bi ànd ak ñoom xeex ñoom ba ñu dagg ñu armel bu ñu yaakaaree ne alal ñëw ci almeeri mooy tax nga am alal bu ñu yaakaar ne def nit dara ci almeeri mooy tax nga am alal doo am dara Birame Khary ndaw lii loo xamante ni moom la sulee ci biir bàmmeel yi gis nga lii ci biir bàmmeel lañ ko sullee grand noo gisee lii nga xamante ni yaa ngi ko fekk ci biir bàmmeel yi. dëkk bi dafa doy war si lañ fekk li si benn bàmmeel xam nga ma génnee ko ci bopp bi nga ko fekk wala ci côté tànk yi. dañ ko teg noonu si côté bopp bi noonu noonu. waaw amaan ku def loolu amaan dafa réere mbir. waaw amaan dafa mbir alal aduna wala sa nafsu bakkan warul mun a tax nga def yenn yi doomu aadama ndax li nga def nii nii amaana ki nga def loolu moo la ëpp Ahmadou Bamba Mbacké xam na lima may ki nga def loolu moo la bu bopp dëgg la te amaana tay say nit nit ay garabam li amaana boo ko dindul woon kooku noonu mënoon nga ko sonol yii tamit yaa ngi ko fekk tamit ci biir yow waaw maa nga fekk ci biir ay la ay puso la puso. ay puso waaw. ay puso yu ñu waaw ay lenset. ay lenset loolu la ñu jël teg ko fi moom ngeen jël moom ngeen fekk ci armée yi. waaw ci biir bàmmeel yi kay. waaw waaw waaw dañu ko doon wàq gis ko. waaw waaw naa gaañ nit yéen ñi nga xam ne yéenay set set. waaw parce que ñun ay loxo def gis nga. waaw soluñu gant soluñu dara. Mm-hmm. sol ñu sax ay daal lan nga ñuy wax ci lii nga xamante ni am na ay doomu aadama yoo xam ne ñoo ngi koy def lii daa baaxul ah. doomu aadama yi koy def liggéey nit pour mu dof la wala liggéey nit pour mu tàqali ko ak sagom mu bañ a ànd ak sagom loolu baaxul armée dañ kaa war a defaraat yokk miir yi defaraat ndox yi armée bi gën a set waaw am lépp parce que suñu yaay lañ ci suul quoi ak suñu papa yi doomu aadama war na xool si diggante ak suñu borom te xam ne li li tëral foofu nit ñu ne ñu ne ko ñoom ñu indi ko fi ñu ko comme noonu ñu ko tëralee nit ñi nañu ragal chaque jour ñu waaraate ko chaque jour ñu wax ko mais nit ñi ñu dara. surtout ma ndax ki lay topp ki lay topp ba ngay dund mu lay topp ba nga dee yaakaar ne kooku ragalatul dara de. man nag loolu moom ma gën a yéem si àdduna nit ñi dañ lay topp ba toppal ba sa biir bàmmeel foofu nag man moom a njëkk a yéem nag ku ragatul lii man sumaare man ragal naa ko man. damaa yaakaar ne ñi koy def xalaatuñ ne bis dina ñëw ñu indi leen fii mbokk yi almeeru jàmm gën si kaw mbaaw muy almeer yoo xam si ni métti na trop mu nekk almeer yoo xam si ni kenn ku ci nekk ñi fiy ñëw di fi bay chaque jour seen baay a ngi fi wala seen maam a ngi fi wala seen yaay a ngi fi wala seen nijaay a ngi fi wala seen tante a ngi fi tey jii ñi fiy ñëw tey di fi bay kenn ku ci nekk sa wajur a ngi fi mais mbokk yi dañuy ñaan autorité yi nañu jàppale jàmm gën si kaw mbaaw ndax jàmm gën si kaw ci mbënd mii ak ca ndox mi ak ca nawet bi nga xam ne moo fi nekk daaw ba noor ba nawet lépp fekk ko fi ñu fi rob ay nit mën na ñàkk suñuy naaw la ñoo fi tëdd de te mën na ñàkk mën na ñàkk nañ ñu dimbali ci ay almeer yoo xam si ni jàmm gën si kàmbaaw moom lay jooy jàmm gën si kàmbaaw faas mbaaw tëlimam jaara yëmbal route de Boune ñëpp même almeer la ñuy jooy almeer yi nga xam si ni moom moo fi nekk ci jàmm gën almeer yi fees na almeer yi fees na nañu dimbali commune bi ndax sam-sam fi suul teli mam jaara fi lay suul euh, Fass Mbao fi lay suul jàmm gën fi lay suul mairie jàmm gën tamit ñoom fii la ñuy rob te loolu mën na ñàkk nañu dimbali jàmm gën si ka mbaax ndox sonn nañ fi nga xamante ci biir foore bi ñaay baa ngi nii ñu dimbali si ñaay baa ngi nii forêt baa ngi nii ñu am fay almer ñu koy lancé nag président Macky Sall di la ko ñaan ak sa gouvernement bépp di ko ñaan premier ministre Amadou Ba na dimbali jàmm gën si ka mbaaw Amadou Ba na nga dimbali Diamaguène Sicap Mbao ndax yaay premier ministre dimbali Diamaguène Sicap Mbao sonn nañ de tey nag mbayum Almeri gisu gisaguma fi nag man bi ma ñëwee ba tey benn maire laa fi gis muy Aliou Badara Bey ak ki nga xam se ni moom mooy Moussa Fall ñoom laa gis tey fii gisuma fi beneen responsabilité beneen responsable boo xam si ni nekk na Diamaguène Sicap Mbao wala boog bu ma ko gisul nit ñi bari ñee tax mais nag mbokk yi nañu gën a xam ne Diamaguène Sicap Mbao jooy bi muy jooy muy Almeri Almeri la Diamaguène Sicap Mbao di jooy almeer yi nga xam si ni Doudou Assane Mbaye Daba Sey bi Khadiba ba ci Kumbandoo Fène Fall ba ci Aline Badara Bey même loolu moo fi ne bu ñu ñëwee déwén lii la ñuy jooyaat te loolu mën na nekk mën na bañ a nekk nañu dimbali nit ñi dimbali jàmm gën si sonn nañu autorités yi dañuy wax rek dañuy wax rek nañu wax ci lii ndax lii mooy dëgg lii mooy këru dëgg gi lii la soxla ñu dimbali ñu ci waaye nag dégg ngeen kàddu yi nga xam si ni moom la xale yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ak mag ñi nga xam ñoo dëkk ci commune bi même li ñuy jooy moom lañuy jooy mbokk yi di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal sunu borom defal leen jàmm di ñaanal sëriñ Sidi alxuraan mu yàgg fi te ànd ak wér ndax def na délégation boo xam ne ñëw na fi mbokk yi di gërëm réew mi boo xoolee fi ñu dugg sànq muy ndox moom la moom la almeer yëpp am nañu dimbali askan wi man bu ma deyee fii lañ may suul keneen ak keneen bu faatoo fii lañ koy suul te lii mënatuñoo denc fenn kenn nañu tëj almeer yi nañu tëj alméeri te ut alméeri bees yoo xam dañ koy defar mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ak Leral TV Leral point jërë ngeen jëf. kàddu daal di jëpp ngir amal ab bërëb boo xamante ne bii fa la ñuy denc way dawlu yi kilifa yi nekkee ci bile diwaan noppi nañu ngir dugal ci seen loxo.